asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma juróom-benn fan ci jumaada saan yi muy weeru maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fanweeri fan ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom-benn fan bokkul ci lim yu yi lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na lii ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga bëril sama alal ak sama njaboot yàlla na nga ma barkeelal li nga may jox allahuma aksir maali wa waladi wa baarik lii fii ma ataytani allahuma aksir maali wa waladi wa baarik lii fii ma ataytani xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul aw nit ñoo xam ne dañuy def ak mooy yàlla ci seen biir ñu am kàttanug dañal ko te dañaluñu ko lu dul ne tuuteetee sunu borom wàcce am mbugalam ci seen kaw xaddis bi abu daawud génnee na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min qawmin yumalu fihim bilmaasi summa yaqdiruuna ala an yuxayiru summa laa yuxayiru illaa yuusiku an yaumahum allahu minhu bi iqaab axrajahu abu daawud waxtu julli yi